ih kan nga nop ma kan nga nopp mi looy yow kan nga nop la wax ana kan li tit lu na kan nga nop ah dama eh. la kan nop ah. dama ya, ah, la eh, no be tax waxo kenn nga lay léegi sama photo bi nga tax mom pour lan la mom et puis nop nga nak pour lan la lan moo nga nop ma eh way sab ayom bu jàllaw na ba ci xaw ma lan la mooy waxi lan lu hmm. yàlla ma def yàlla ma waaye xanaa mbëggeel liñ ci daan wax da cee néewut kon yombal nga nopp de dama la nopp te niñ koy wee neexut baaral ko àddunaay waaj a tukki te na guru bu nit naan dama la nopp te nagu de cent cinquante mille mbaa dof nga rek bi nga mën a bari dof nga danga maa nopp balan boo dofee xaw mu ko lay faj ah kenn xamul lii nag wax dëgg yàlla doy na wala man yow yaay sama reflet dorog bi i noppee go ma jëm sa deret laay pikiro kan ngay pikiro yow ci këruk àddina mbëggeel kañ la am serengal ba ngay jël deret di cuuj ah wuyu ma bëggatoo rod? yow mi bëgg nga leneen du mbëggeel mbëggeel ak deret faf ak may mënuma koo jiñ kenn li mënuma koo jiñ kenn mënuma koo jiñ kenn du Nafi Mbaye du ma may jaata ndax ñoom ñëpp may nañ ma jàmm du madame saw création waaw ñooma ah, ñiya ah, ñiya ah. soxna Mariama do bàyyi sa tuñ woowu ngay langal naan sa deret lay tiitaroo sa deret lay pikiroo lii damay tiital nag wax dëgg yàlla ah bu dee damaa nekk promo tamit yenteel ma ko wax ma xam fu may taxawee quoi moo gën yani kenn xamu ko nag ah léegi Mariam baax na su ma la noboon léegi yow loo mën a may jox lii nii ah ay yomb jàllaw na ba dugg sa cere ja nag far lii mooy lan nii lii nii lii nii a teel na de ës nga saf di neex ya, ndaw sàmba saf di neex maa ko moom di neex yaa ko moom daf di neex ya, ma ko moom man ak ñi may commentaire man kese du ma dugg ñun ñëppay dama doo rek mbaa pare ngeen te fii nii guddul yow war naa doo fi root baax na baax merci balal ma maam ku ma lambaay balal ma mbëggeel ku mu jàpp daal balay baay nga tàggoo sago lii